que jotul tamit comme ni nga ko waxee dem Gambie est ce que jotul euh, ñu jël suñu làmb ji yóbbu ko comme maanaam ci lu mel ni MMA ndax gis nañu Reug Reug moo ngi ci kii di Siteu moo ngi ci kii di Bombardier moo ngi ci ba ki démb bi ma seetee Alliance Baldé nee na mooy man maay mbër bi gën a ndaw boo xamante ni maa ngi dem MMA ndax bokk na ci benn tournoi boo xamante ne nee na la euh, dimbali ma waay Maroc états ak France xaw ma. est-ce que pare nga pour pour pour défil ji loolu. <laughs> si pare nañ wax dëgg yàlla dañuy gisagul bunte beeg yooyu noonu rek mais ñun ku ñu xam ak suñu style ak façon bi ñuy bëre moom MMA warul nekk lu lu difficile wax dëgg yàlla man su ma gisee moyens yi moom wax dëgg yàlla wala yoon bi amal lu may lu may hésité waa parce que làmb bi ñu def fii moo gën a métti foofu te eh, bon il paraît que foofu la muy génne fii génne gu ko donc ñun suñu gisee bunte bi incha allah dinañ ci te ñoo ngi ci pexe yi sax xëy na nag. ci média lañ toog dañuy interpeller aussi képp koo xam ne gis nga ni bunte bi ñun war nañ fi mën a jaar rek ñu ngi lay ubbil seen ñaari loxo nga accueillir ñu ñun loolu suñu sport la waaw suñu sport la te buñ ci duggee dinañ xam ne ñun ñoo ko moom. mais mais mais est-ce que est-ce que est-ce yaa ngi koy bàyyi xel ëllëg ci biir nga dem euh, bokk ci ñi nga xamante ni dañuy teewal Sénégal. si bien sûr parce que man book su ma doon dem bay dugg ci MMA dugguma si pour rivalité ak benn benn sénégalais. yee eh, su ma doon si dugg parce que man am na lu nekk si man loo xam ne man xam naa ko te métier boobu ñuy élément boobu ñuy sport boobu man lu yomb la ma àgg ci fi ma ci war a àgg parce que xeex la rek te boo dëggee si dëkkule bi boo xoolee bon amul différence ak xeex làmb moo gën a metti fuuf yee eh, mais wax dëgg yàlla ñun pare nañ pour représenter Sénégal fépp ci àdduna ci MMA waa